Serigne Mañaaw Gaye Serigne Mañaaw Gaye mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1929 ci dëkk bu ñuy wax nag daw si Firdawsi daw Firdawsi gay nag mi ngi ci wetu dëkk bii nag di Touba Belalug Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké digganteem ak Touba nag fukki kilomètre ak juróom-ñaar la Serigne Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi nag moo ko sanc ci atum 1928 Serigne Mañaaw Gaye nag foofu itam nag la feeñee jamono muy doomu Serigne Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi ak soxna Faati gay bi mu feeñee jamono nag waajuram Serigne Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi xaritam xam nag bu mu bokkaloon ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul la ko tuddee muy sëriñ Mañaaw Silla sëriñ Mañaaw Silla mii nag la sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi tudde doom ji nag di sëriñ Mañaaw Gaye am na nag ñu bokkal soxna Faati gay ak sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi ñu mën cee ràññee nag soxna Safiyatu Gaye bintu soxna Faati gay bintu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi benn bant boobu nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen soxna Safi Gaye mii nag bi matee dem kër sëriñ Moodu Aram gay nag lañ ko joxoon mook sëriñ Moodu Aram gay nag am nañu ak njabootu ñu mën cee ràññeek sëriñ Modou Gaye ibnu soxna Safiyatu Gaye ibnu sëriñ Modou Aram Gaye sëriñ Jëmmooy Gaye ibnu soxna Safiyatu Gaye ibnu sëriñ Modou Aram Gaye soxna Mbeen Gaye bintu soxna Safiyatu Gaye bintu sëriñ Modou Aram Gaye soxna Anta Penda Gaye bintu soxna Safiyatu Gaye bintu sëriñ Modou Aram Gaye njaboot gi nag ñoom ñooy jarbaati sëriñ Mañaaw Gaye moom sëriñ Mañaaw Gaye nag am na ñu bokkal waajur wu góor nag te bokkuñu nag waajur wu jigéen ñu mën cee nag magam nag sëriñ Moor Jaara Gaye ibnu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi sëriñ Alamine Gaye ibnu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi soxna Aminta Gaye bintu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi Seydul Amin Gaye ibnu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi soxna Mbacke gay bintu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi sëriñ Thierno Gaye ibnu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye si soxna Jëmmu Gaye bintu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye si ñii nag la bokkal waajur wu góor nag te bokkuñu nag waajur wu jigéen bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye si moo ko jox nag taalibeem boo xam ne nii nag ci jàngeek jàngale nag la nekk nag ci dëkk bu ñuy wax kër mbay ndumbe di ku ñuy wax nag sëriñ moor mariama sëy sëriñ moor mariama sëy mi nag moo jàngal nag sëriñ ma ñaaw gay ba mokkal alxuraanul karim dëkk boobu nag di kër mbay ndumbe magam nag sëriñ àllamin gay ak rakkam nag sëriñ ceerno gay itam nag fa lañ jàngee ginnaaw bu jàngee alxuraanul karim nag ci dëkk boobu nag di kër mbay ndumbe ci sëriñ moor mariama sëy nag ba noppi daa delsiwaat nag ci ron magam tombeeg itam nag waajuram génn àdduna nag di sëriñ mouhamadou lamin gay nag firdawsi booba itam nag magam mi ngi tuubaa di sëriñ moor jaara gay nag mi toog toogaayu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag si bi mu fi ñëwee nag def fi ab diir la ko sëriñ Mor Jaara Gaye jébbal nag sëriñ Habibu Mbàkke imaam ci mbul kayal ci loxoy Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ibnu Xaadim Rasul ginnaaw bu mu wéyalee nag njàngum xam nag ci sëriñ Habibu Mbàkke imaam nag ci mbul kayeel ba jàng fa itam nag leen itam nag ci xam-xam daa delsiwaat nag ci loxoy magam nag sëriñ moor Jaara Gaye sëriñ Mor Jaara gay itam nag yóbbuwaat ko nag ci dëkk bii nag di Ndar Géej ci ku ñuy wax nag sëriñ Ahmed Jaxate mu wéyal fa nag am njàngum xam-xamam ginnaaw sëriñ Serigne Ahmad Jaxate nag ci ndar géej daa dem na ci réew mii nag di gànnaar gën a na xóotal nag xam-xamam ginnaaw gànnaar nag la delsiwaat nag Touba ci ron magam nag sëriñ Mor Jaara Gay Serigne Mor Jaara Gay tim nag tarbiye ko jox ko ndigal nag mu dem ci dëkk boo xam ne nii nag seen waajur nag moo ko goroon di fi ñuy wax nag daarul xayri nekk itam nag ci suuf si nag di daarul muxti digganteem ak daaru muxti itam nag toll itam nag ci juróomi kilomètre Serigne Mouhamadou Lamine Gay Firdawsi nag moo ko sancoon ci atum 1914 ci ndigalul ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul ginnaaw bu mu ko doon xamal ne demal nag seeti Ceerno mu dogal la nag ab tool ginnaaw bu mu ñëwee seet si maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la dànd nag juróomi kilomètre digganteem ak daaru muxti jox ko fa suuf nag mu sanc fa nag ab dëkk nag tudde ko nag daarul xayri daarul xayri googu nag ñu ngi ko gën a xam nag ci Touba Gaye ba mu fay ñëw nag am na ñu mu fa fekk muy ku ñuy wax sëriñ Jabel Faal sëriñ Magéey Faal yi sëriñ Mat lemin Géey ak ku ñuy wax nag sëriñ Mbay Gaye booba nag kër ga ka fa nekkoon mooy ku wax nag sëriñ Cheikh Assu Gaye Cheikh Assou Gaye moomu nag moom lañ dénkoon nag kër sëriñ ma Lamine Gaye gi ginnaaw bu sëriñ ma ñaaw Gaye nag ñëwee nag ci dëkk boobu nag di daarul xayri ci ndigalul magam nag sëriñ Mor Jaara Gaye bi nag daarul xayri mi ngi koy xamal ne soo demee nag ci dëkk boobu nag di daarul xayri sëriñ Cheikh Assou Gaye nag ma nga fa soo eggee itam mu fob benn néeg ba nag jox la ko nag nga dëkke fa ginnaaw bu mu egsee nag ci dëkk boobu nag di daarul xayri la sëriñ Cheikh nag Assou Gaye wéyal nag ndigalul sëriñ Mor Jaara Gaye boobu fob benn néeg bi nga xam ne nii nag moo nekkoon nag ci ca kër ga jox ko nag doomu sëriñam boobu nag di sëriñ ma ñaaw gay sëriñ ma ñaaw gay nag ko lii nag moo ko indi nag ci dëkk boobu nag di daarul xayra nag ñu gën koo xam nag ci Touba gay nekk itam nag ci suuf si nag di daarul moxti ndigalul magam sëriñ moor jaara gay nag ko mu wéy nag nekk nag ba ni mu génnee àdduna nag ci atum 2006 dëkk nag di daarul xayri ñu gën koo xam nag ci Touba gay am na nag ay donga nag yu mu fa nekkaloon ndool ñu mën cee ràññee nag ku ñuy wax sëriñ daam géey ak ku ñuy wax sëriñ xaadim sëriñ daam géey moomu nag ci taalibeem yi yàgg moom nag nag ci la bokkoon laataa muy dal alxuraanul karim nag lañ ko ko ba bi muy dal alxuraanul karim nag mi ngi ak moom bi muy dem mbulkaaye litam nag da koo yóbbaale woon nag ca daara ja bi muy dem ndar nag mu bàyyi ko nag ci kër gi bi muy dem gànnaar itam nag mu ba ko fi bi mu delsee am njàng nag mu wéy ànd ak moom fépp foo xam ne nii nag dem na fa ànd na fa jëmm mu bokk itam nag ci taalibeem nag yu njëkk yi nag bokk nag ci taalibeem nag yu ko gën a jege bi mu ñëwee nag ci dëkk boobu nag di daarul xayri la ko indaale foofu nag ci dëkk ba mu nekk fi nag ba ni mu jote ngërëm mbay ak njabootam nag ñi ngi wéyitim nag di ziyaare kër gi bi mu ñëwee foofu itam nag fekk na fi ay mag ku mel na sëriñ mbay géy sëriñ magay faali sëriñ jabel faal mooy waajuru nag sëriñ cheikh faal ak ñeneen ak ñeneen nag ñoo xam ni itam nag fekkoon na leen nag ci dëkk boobu sëriñ ma ñaaw gay nag bi mu ñëwee ci dëkk boobu nag di daarul xayri ñu gën koo xam nag ci tuubaa gay defoon na fa nag daaray xam-xam ak daaray nag tarbiya ba tax na itam nag kii di sëriñ abdul quddus mbàkke nekkoon doomu maam cerno ibrahima faati ndaa ma daaru daara jooju mu amoon nag te soriwul dara dëkk bii nag di daarul xayri ñu gën koo xam nag ci Touba Gaye daana ma ñaaw gay dafa sàkku itam nag lii di xam-xam ba tax na itam nag bari na ci dongi sëriñ Abdul Xudoos Mbàkke yoo xam ne nii sëriñ ma ñaaw gay itam nag moo leen jàngal nag xam-xam ci ndigalul sëriñ Abdul Xudoos Mbàkke sëriñ Abdul Xudoos Mbàkke itam nag ku jaxasoo woon ak moom la ba tax na itam nag daana ko wooye nag sama doomu sëriñ bëggoon na koo def itam imaamu jumaay daarul muxti mu wéy nekk nag ci dëkk boobu nag di daarul xayri ñu gën koo xam nag ci Touba Gaye moo fa indi itam nag ndox muñ naan defaroon na fa itam nag jàkka ju ñuy jaamoo nag suñu boroom ak daaray xam-xam joo xam ne nag ma nga fa tarbiyee na fa itam nag mbooloo mu takkoo takkoo takku ca ña nga xam ne nii nag bi muy dem ci dëkk boobu nag di daarul xayri nag ñu gën koo xam nag ci Touba Gaye ñoom nag la àndaloon ku ñuy wax nag sëriñ Amdi Gaye ak ku ñuy wax nag sëriñ Maxari Gaye bi mu matee taxawal kër nag ñu boole kook soxna suñuy wax nag soxna Mariama Fall mook soxna Mariama Fall nag am nañ ak njabootu ñu mën cee ràññee nag maam Cheikh Gaye di kim fayee nag waajuram sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag Firdawsi sëriñ Cheikhouna Gaye bu xel koom di kim mu fayee nag sëriñ Touba xaadim rasuul soxna Faama Gaye soxna Xari Gaye sëriñ Habibu Gaye di ki mu fayee nag sëriñ Habibu Mbacke imaam mi nga xam ne nii nag moo ko jàngal nag xam-xam sëriñ Saaliw Gaye di ki mu fayee sëriñ Touba Cheikh Saaliw Mbacke sëriñ Abdul Xaadir Gaye di ki fayee nag sëriñ Abdul Xaadir Mbacke sëriñ Ahmadou Muxtaar Gaye mi nga xam ne nii nag moo nekkoon nag taawu soxna Mariama Fall sëriñ Ahmadou Muxtaar mii nag guddul aw fan ak ku ñuy wax nag soxna Aminta Gaye njaboot gi nag la soxna Mariama Fall am ak sëriñ Mañaaw Gaye mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di daarul xayri nag ñu gën koo xam nag ci Touba Gaye toppit nag ci ginnaaw magam nag sëriñ Mor Jaara Gaye ba nim noppee gis nag sëriñ Mor Jaara Gaye mu topp nag ci ginnaaw magam nag sëriñ Alamin Gaye di ko xoole nag nu raw nam doon xoole nag sëriñ Mor Jaara Gaye ba tax na itam nag mook sëriñ Mañaaw Gaye nag séq nañ lu baree baree bari sëriñ Alamin Gaye itam nag defoon na ko jëwriñu kër gi comme noonee nga xam ne itam nag ni la ko magam defe woon jëwriñu kër nag di sëriñ Mor Jaara Gaye ba tax ne nag moom lañ féetale woon nag képp koo xam ne nii nag génn na àdduna nag ci njaboot gi mu dem nag taxawu la xam nag ci ñun bokkal sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi wala taalibe yi yaakaar nag Firdawsi képp koo xam ne itam am nga doom itam nag mu tudd la lu waaye jaaxle nag ci kër gi itam nag moom nga koy diisa ndax moom la ay magam nag defoon jëwriñu kër gi képp koo xam ne nii bàyyi koo nga fi nag wala nga am doom wala nag sa ginnaaw itam ñu war koo taxaw sëriñ ma ñaaw gay nag lañ ko féetale woon bi magam nag sëriñ Alamin gay nag toogee toogaayu sëriñ Mahamadou Lamine gay Firdawsi dëkk boobu nag di Firdawsi nga nii nag waajuram nag moo ko sañtoon ci atum 1928 moom itam nag mu feeña fa jamono nag ci atum 1929 ginnaaw nag bu ko sëriñ Alamin gay nag dee tuxal ngir nag ñu sañcaat ko faneen na ngir mu gën a jege ndox ma moom nag lañ joxoon ndigal nag mu nattaat dëkk ba génne waatitim na xibla ba muy jàkk jàkka ja fa nekk loolu itam nag taxoon na nag mbooleem doomu cheikhul xadim yi nag nawoon ko waaye nag ci doomu cheikhul xadim yi nag kim ci gënoon a jaxasool foboon léppam nag jox ko ko mooy sëriñ Touba cheikh Abdoul Ahad Mbacke waaye ma mu dul Fadal Mbacke itam nag jaar nañ fu bare bari ndax bi muy jàng alxuraanul karim wala bi muy jàng nag xam-xam am na bés itam nag sëriñ Fàllu Mbacke nag gis ko di ko laaj nag fan nga nekk mu di ko xamal ne daal maa ngi jàng nag lii di xam-xam cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag di ko doomu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi ci jàng ak jàngale rek nag la war a yëngatu kon foofu nga nekk itam nag na nga fa góor góorlu ndax kat doomu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag ci loolu rek lañ ko war a xam loolu itam nag tax na tudde na Cheikh Mamadou Fadal Mbacke doom sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke moom amoon nañu ak jaxasoo ko yaatoo yaatoo yaatoo ba tax na sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke bi mu toogee xalifa général des Mourides daanaka liggéeyloo nag ci lenn tim nag ci xasida yi nag ak xam-xam tudde na sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad itam nag la joxoon boppam ba tax nag lépp loo xam ne ni nag daana ko bay sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké nag la koy yitte bépp addiya boo xam ne ni itam yoonu murid itam nag laaj na ko sëriñ ma ñaaw gay itam nag kenn mënu ko ci ndax Cheikh Abdou Lahad Mbacké nag la daa xoolee nag Xaadim Rasuul moog sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacké itam nag ñu jaxasoo woon lañ tudd na doom itam nag sëriñ Abdou Khadir Mbacké sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké moom seenu jaxasoo moom dafa yéeme woon tudde na doom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké itam nag moo ko yóbbu Makkatal Mukarrama développement sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke itam jox na ko suuf su yaatoo yaatu ci dëkk bi nag di Touba ci bi ci yoonu daaru moxti wi foofa itam nag jannatul firdawsi nag lañ ko tuddee ak njabootam itam nag ñoo fa féetee def na fa itam nag jumaa ju mag a mag fa la njaboot gi itam nag di jullee ajjuma digganteem ak sëriñ Touba Cheikh Soin bu Mbacke diggante la nag bu yaatoo yaatu ñoom ñaari itam nag nit yi xam-xam lañ te fiñ dëkkoon nag ci daarul xuddoos itam nag suréewul te kër gi sëriñ Touba Cheikh Soin bu Mbacke dëkkee waajuram sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye firdawsi nag lañ ko dénkoon kon nag ñaar ñu jaxasoo moom doomu cheikhul xadim gi ak doomu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi bi cheikh Mourtada Mbacke ñoom ñaar moom seenu kóllëre nag dafa ëppoon tudde na doom nag cheikh Mourtada Mbacke bari na nag ci ay sëtam wala lenn itam nag ci ay taalibeem buñ amee doom cheikh Mourtada Mbacke nag lay sàkku itam nag ñu tuddee ko Mourtada Gaye yi bari na lool nag ci ëpp sëriñ Mañaaw Gaye gi te wóllëre gum amoon nag cheikh Mourtada Mbacke ibnu Xaadim Rasul nag moo ko waraloon cheikh Mourtada Mbacke itam nag ko gana si itam nag daaru Xuddoos ngan gi itam nag ëpp fukki at at mu jot daana fa am ñaari fan nag ci biir kër ga noonu mu ko amee njaboot gu góor gi itam nag ni la ko amee njaboot gu jigéen gi soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim sëriñ ma ñaaw na ko doom bintu Cheikhul Xadim itam nag tudde na ko doom soxna Faati mi taawu baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag tudde na ko doom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci njaboot gi mu samp nag ay daara ci dëkk bu ñuy wax nag Ross Béthio sanc ay daara itam ci dëkk bu ñuy wax Ceyeen sanc ay daara itam nag ci dëkk bu ñuy wax Mbóojeen sanc ay bii ñu tuddee daarul xudduusa fee nga xam ne nii nag mooy suuf si ko sëriñ Tuuba Cheikh Saaliyu Mbàkke joxoon di jannatu firdawsi si itam nag ci yoonu daaru moxti wii ak dëkk boobu nga xam ne nii nag fa la nekkoon ci ndigalul magam te waajuram sañcoon ko di daarul xayri ñu gën koo xam nag ci Tuuba Gay daara yi nag la amoon di fa jàngale nag xam-xam ak itam nag di fa yar nag ak di fa tarbiya mu nekk nag koo xam ne nii nag saa boo ko gisee daa xam ne nag doomu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye firdawsi la nag ci xam soo ko gisee itam nag da nga xam ne doomu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag firdawsi la ci ragal suñu boroom nag nag ak maandu mu nekkit ku bëgg ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul fabog njabootam nag di leen xoole ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ñim bokkal nag sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi mu leen di xoole nag sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi jàppe leen ay mag nag ak akub sëriñ li ko dale nag ci sëriñ Moor Jaara gay mi nga xam ne nii nag moo ko yóbbu woon nag mu jàngi xam-xam yabal ko itam nag mu dem nag ci dëkk bii nga xam ne seen waajur nag moo ko goroon nag di daarul xayri yi ak sëriñaa Lamine Gaye mi nga xam ne nii nag defoon na ko jëwriñ ba tax na lépp loo xam ne nii itam nag waroon na itam nag ci njaboot gi taxaw jëwriñ jooju nag mu fedd feddiliku nag ci ginnaaw nag bu ko sëriñ Mor Jaara Gay nag defee sëriñ ma ñaaw gay mii kon jàng ak nag ci la nekkoon nag ba ni mu génnee àdduna yaraatoon na nag yeneen i soxna ñu mën cee ràññee nag soxna suñuy wax soxna Seynabu Siise sëriñ ma ñaaw gay nag mook soxna Seynabu Siise nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag am faye woon soxna faati ja mbàkke bintu cheikhul xadim ñu ko daa wooye nag soxna maam faati gay ak ku ñuy wax nag sëriñ cheikh mbàkke gay di kam faye woon sëriñ cheikh mbàkke gay nde faatma ak ku ñuy wax nag soxna moomi gay di kam faye woon soxna moominatu mbàkke bintu cheikhul xadim yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna faati isaa gay moo soxna faati isaa gay nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag sëriñ moor jaara gay di kim faye woon nag magam nag sëriñ moor jaara gay ak soxna faati gay nag moom faye waajuram soxna faati gay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna moomi gay moo soxna moomi gay nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna jëmmu gay ak soxna may mënatu mbàkki mi mu faye soxna may mënatu mbàkki bintu cheikhul xadim ak soxna ndaag gay soxna aminta gay sëriñ abdoulahat gay di kim faye sëriñ tubaa cheikh abdoulahat mbàkke soxna say faal gay ak soxna a gay mi mu fayee nag soxnaam si mu njëkk a dëkkoon nag di soxna mariama faal ak sëriñ allamin gay di ki mu fayee nag magam na bu ñuy wax soxna mariama jóob mu soxna mariama jóob nag amoon nañ ak njaboot muy ku ñuy wax sëriñ murtada gay di ki mu ibnu xaadim rasul sëriñ mbàkke gay ak ku ñuy wax sëriñ jiili gay moom sëriñ ma ñaaw gay nekk na nag ñetteelu xalifa nag sëriñ mohamadou lamin gay nag firdawsi mooy doomu sëriñ mohamadou lamin gay firdawsi itim nag bu mujjee toog nag toogaayu sëriñ mohamadou lamin gay firdawsi ndaw si nag ci ay doomam sëriñ ma ñaaw gay nag mi ngi génn àdduna bisub talaata fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru tabaski ci atum 1426 nag ci gàddaay gi talaata fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru tabaski ci atum 1426 gi dëppoog nag muy mardi 17 janvier 2006 mardi 17 janvier 2006 ci wéradi nag gu ko daaneeloon ñu ko doon yóbbu nag ci dëkk bii nag di ndakaaru bi mu duggee ndakaaru nag laata am muy egg nag ci hôpital nag bi ñu ko doon yóbbu la génn àdduna ñu jëlewaat ko fa nag indi ko nag Tuubaa ci xilaafam nag doomu sëriñ Touba bi ñu tudde woon nag Cheikh Saliou Mbacke sëriñ Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ibnu Xaadim Rasul nag moo ko jullee ñu denc koy tiim nag ci wetu magam nag sëriñ Mor Diarra Gaye ci armeer yu mag yi ab xalifaam nag mooy kam faye waajuram sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi ñu gën koo xam nag ci sëriñ Maam Cheikh gay moo fi toog nag ci atum 2006 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cërëm te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu nag ak mbooleem ñu mu séqal nag sëriñ Mañaaw Gaye sëriñ Mañaaw Gaye nag am na bis nag buñ koy fàttaliku bis bi nga xam ne moo ko taxawaloon waajuróom di fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru baraxlu dëppoog bis bi nga xam ne nii nag ci la waajuróom nag sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi nag génn àdduna mu ko daa amale nag ci dëkk boobu ko di ci Touba Gaye bis boobu itim nag la ak njabootam di ci fàttaliku nag nam ci daa fàttalikoo waajuróom di ko ci fàttaliku waale muy bëccëgu fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru baraxlu màggal gi itim nag màggalu bëccëg la suñ demee ba tàkkusaan nag ñu ñaan jàppaat bis bi nag déwén mboolem njabootuk sëriñ ma ñaaw gay gi moo xam doom taalibe nag ak soppe saa bu fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru barax lu jotee ñu ànd nag dem nag ci dëkk bii nag di Touba gay di dëkk boo xam ne nii nag fa la sëriñ ma ñaaw gay nag féete woon ci ndigalul magam nag sëriñ Mor Jaara gay da ci fàttaliku nag bis nag boo xam ne nii nag moom nag daana ci fàttaliku nag sëriñ Mouhamadou Lamine Gay Firdawsi ñu boole ñaari bis yi nag di ko ci fàttaliku waale ñuy ñaan nag ci turóondoo sëriñ ma ñaaw si la woon te doomu jàmbaaru sëriñ Touba Seexul Xadim nga taalibeb sëriñ Touba Seex Abdou Lahad